ba mu tëg nii su fekkee nag ñun dañoo bëgg a jàpp dund gu yomb mooy kenn ku nekk toog di bëgg lu yomb yaakaar naa ne euh, liberté bii ñu am bay dund nii liberté boobu danañ ko xaaj gi digg bi xaaj biñ koy remplacer mooy takkal la buumu njaam li leen neex ngay wax li leen neex lañuy def ci réew mi ku mën a yor alal joo xam ne sëñ Muntaxa Mbàkke ko dajale ak sëñ Babacar Si Mansour ak sëñ Mahi ñas ak ñoom Tayiru Saar ak néew ji doole yi ñoo dajale seeni alal jox la ko ne la ah ñun kat dañoo am feebar bu ñu dugg faj ñu ci nga jël alal ji lekk ko defe naa ne ku saraxatut gumba waroon koo bàyyee yalwaanam hmm. comme que am nañ xol boobu ñooñu kenn waru leen dénk pétrole kenn waru leen a dénk gaz dénk hmm. kon nag état bii fi nekk moom ku leen dénk pétrole bii di ñëw ak gaz beeg euh, suñ zircon yeeg yi hmm. mooy nga yar ay ay cuuj ba noppi jël ngan di ngan di ngan di ngan di ngan di siiw def ko ci biir kaaf gi boo yeewoo fekk siiru yi lekk cuuj yi c'est clair waaw alors bi ñuy mu jëlee Cheikh Bara euh, nga baal ñu euh, si la ñu waroon terminer muy euh, attaque bi nga xam ne moo am kër Mollah Morgan mm. di activiste bi certainement gis nga ko rapidement un très rapide commentaire ñu daal di tëj waaw foofu mënuma ci mënuma ci sori. Mhm. li ma mën nag mooy ñaawlu ko. parce que man euh, Mollah xaw xawuma ko. Mhm. seen kër ña fa nekk ñëpp xawuma leen mais dama koy àtte comme sénégalais ak moroom ci. Mhm. jàpp naa ne yow mii am na sa rakk yoo xam ne mi ngi liggéey feneen. ci lim nekk yow nga nekk fii di liggéey feneen jàpp naa ne li ngay def yow la engagé mag nga masoor nga. Euh, waruñu la mën na yow kat yaama ma tooñ ma dem wër sa rakk feneen. di ko yàqal parce que sa mag bi liggéeyee Sénégal set moo ma def nangam. mola mag la nit la mu ngi ma ne ay combat politique di wax ay waxam dégg nga ku am looy lijjanti nga lijjanti ko ak moom voilà bu doon ci mola lañ dal su boobaa sax man mën naa ci bañ am lu ma naqari mën naa ci am ko mën naa ko ci am mais fii moom boo gisee ma am ci lu ma naqari totaal mooy baay ak yaay ak i rak yoo xamante ne jote wuñoo ko yow dara nekk seen biir kër di dund seen dund mën naa am sax paa bi xamul luy internet bay gis Mollah moom dafa toog rek gis ay nit ñëw dal ci kawam di talent ñi ko def nag man wax jàpp naa ne état Sénégal la loolu loolu laa jàpp du sëriñ lu kenn nañ bàyyi nag ñoom dañ am wala ah dama ne jàpp naa d'accord voilà parce que sëriñ Assane Diouf nekk na fii di sonal état bi bi mu tuddee sëriñ rek ki lañ am profito gaaw jàpp ko dégg nga te pourtant day même sëriñ boobu Assane euh, euh, Amin Ndiaye bi taxaw na ci biir assemblée national di ko dépassé. naan sëriñ boo xam ne dangay wax muy dañ. te sëriñ la doon waxal ay député di ko tàccu di ko ñoddi di ko encouragé. donc tey bu malaat amaatee lu mu wax xëy na mu tudd ay sëriñ xëy na tuddul sëriñ mais man xam naa sëriñ boobu mu doon tudd amul benn violence bu mas a exercer ci kaw doomu aadama amul voilà amul benn violence bu mu mës a jël ngi ne diw violence bi tey këram la am kooku moo ëpp jàmm ci àdduna kon moom du moom du moom du waa këram voilà ñii nga xam ne moom la kër Touré di wooyee waa kër ñàkk jàmm damaa jàpp ne ñoo fa jaar rek mais may encouragé Mollah nag waaw lii lépp rek du dara voilà xeex moom euh, boo ci ba xasee ba dugg da ngay pare te jàpp naa ne Mollah sax moom nit ko am courage la ku ku ñeme la ku am fit la donc jàpp naa ne bu fekkonte ne xoqatal ko yomb na moom la ñuy xoqatal xam nañ ne bu dee Mollah moom ëkk la mënuluñ ko lu bëri ñuy jéem a jaar fii ba xam parce que ay waajur dafa sensible mais ne ñun sénégalais yi ñoo ko a bañ a condamné ba nga xam ne kuy wax nga wax ak Mollah ñu bàyyi ay nit ñu nga xam ne wala taasiru waasiratu wisra oxra sax alxuraan da ko tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kaanu loolu alxuraan daf koy bañ sax voilà yàlla sax dafay bañ Euh, nit tooñ ko mu dem di mbugal baayam wala muy mbugal yaayam. Mhm. voilà loolu yàlla sax daf ko tere kon nañ bàyyi loolu te arrêté ko. c'est ça waaw ñu bàyyi la nga joxe sa kàddu gu mujj. si émission di di kontaan ci ñëw fii euh, ànd ak yéen. Mhm. Euh, lii nga xam ne mooy actualité yi parce que tey su ma xool neexoon na neex bu nga xam ne mënu ma woon ñàkk tey fu ma ko exprimer woo. Mhm. parce que dama xawoon na tëju trop ci Pape Alé. bis bu nekk boo. bu sa téléphone sonné sax nga yaakaar ne dañ la koy tàgge parce que nit ku nga xam ne dafa tëdd mënoo dem seeti ko mënoo xam ci lu nekk loolu dafa metti comme nag yàlla bàyyi na ko yàlla dogal na bàyyi nañ ko ñoom na ci njabootam kontaan nañ ñi ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala lu mel nii bañ a koo gaaw a dalati tam continuer liggéeyam tamit nag voilà parce que ñii moom mu neex bu naqari dañ fiy jógee ñoom xam nañ ko sax voilà Macky rek moo ko xamul ah ñoom xam nañ ko ko ciy waxal ci suuf mu ne la waaw noo ñun xam nañ sax dañuy dem parce que ñaar moo mën a nekk mooy Macky Sall bu demee ci élection yi dañ koy gañe te ak demam wóorul parce que ñun ñi ngi am cinquante quarante moo nga wax ah. Mhm. ñu def deuil national. maa ngi lay wax ne seen seen troisième mandat bi mhm. bis bu rayee quarante mort nañ ko def deuil nationale dénk waaw ñoom ñi ngeeg lu gën a garaaw ab bis di ko dawal mhm. bis bis bi lu ko gën a dangereux lañ yor ñoom bis bis bu def dix-sept millions personnes lañ ba noppi chauffeur bi ko dawal ne daa gëmmu di nelaw waaw ba pare nag ndi naan xoola bis bële mbëkk na ñun 17 millions Sénégal la Macky Sall yi fooyee def ñu ci biis dégg nga takk bëri ba noppi nag doole ci di nelaw mm, apprenti mi di ko tàccu naan ko dawalal bu baax. muy troisième mandat muy troisième mandat ñun ci biis bu gën a garaaw biis bi daanu lañ dugg de. lu koy arrêté. bàyyi. xam ne moo woon wax ko constitution mayu ko ko. yor doole ak bari grenade lacrymogène warut a tax nga bëgg laaj sénégalais yi loolu laajut ndax ba ngay jël réew mi amoo woon benn grenade ta jël nga réew mi. kon bu dee Sonko da nga yaakaar ne amuti grenade wala bëggaan amuti grenade kon yaa leen ko war a mën a xañ su doon loolu lay waat du fi toog Ablaye Wade dafiy toog. Macky loolu la fàtte. wala gis nga yàlla saabu la naree teg mbugal. Hmm. lay roof mbew ba noppi waaw. ara ayta inal insaanu la yatqa an ra'aahu istaxna nit bu ko yàlla bëggee mbugal dëgg da may fit goo xam ne jaaduwul ba noppi nag teg la nga nekk ko beew ba nga xam ne booy xool nit ñi da ngay ay sànqaleeñ lañ fii ne Macky Sall sama classe gi yëpp daa yaakaar ne ay dof lañ ñu jëm fenn nit ñi sénégalais yi ñuy wax mu topp nit ñoo xam ne ñoo gën a bokkat billaahi wallaahi gis nga ñii ko wër nii gis nga kuréel Macky rek jom boobu gaa yi dugal bërki démb mhm. pourtant bi mu koy wax xam nga ban jour la surtout ci législatif yi ba ñu ngi def seen congrès bi ci buntu buntu buntu bi ñu bi ñuy defee congrès bi ci buntu bi la taxaw di wax ak Baye Mbaye parce que ci ojo boobu 30 minutes la mi ngi naan ko maa ngi dugg nii léegi fi ñuy defee suñ congrès bi suñ génnee dinaa la woo te yaa ngi koy dégg xam nga lu mu wax. Mhm. Macky jeexal na ba pare bu xooleewut ba falu fii dootoo falu. te bu ñëwee ci kaw naan Macky da ngay nekk candidat da ngay gagné te moom xam na ne kii jeexal na. gëmuñu li ñuy wax Amadou Ba xam na ne ja Macky jeexal na. Mhm. Aly nguy Ndiaye xam na ne Macky jaaxal na ab Ablaye Sow xam na ne ki jeexal na Cheikh Kanté mm-hmm. xam na ko ñoom ñëpp kenn dofu ci ay nit ñu ni jar lañ di mm-hmm. analyser politique yàgg politique xam nguur guy daanu gis nga seen investiture bi dañ faa xeex te ci national sax lañ ko defee. mais dama ne la non non investiture bi sax du deuil national mais Cheikh Kanté ñoom. moom laa lay wax démb def na Cheikh Kanté la voilà mais xoolal gis nga daanuy daanu ba ne ngoloñ man lu ma la wax. Mhm. xam naa ko analyser naa ko xaar naa ko xam naa ko <laughs> te jaww ji sax loolu lay joxe. Mhm. Macky Sall su amee sens ba am sens du bokk ci élection yi parce que xam la moo tax mooy ñoom ba APR dañu jël seen xaalis ñu def ko ci carte def ko ci campagne bi ba mu jeex. Mhm. ñu daaneel leen. wa ilaa ñu ñàkk seen xaalis rey sénégalais yi doog a daanu. waaye daanu ji moom day am duñ fi toogaat. d'accord voilà jërëjëf kon Cheikh Bara Ndiaye. waaw maa ngi kontaan. Mm-hmm. di nuyu monsieur Mboub ak mboolem waa kër yëpp ak njàbbi sama xarit. ak mboolem waa kër yëpp ak Pape Ngagne ak képp ku fi yëngatu di ñaan yàlla mu def fi barke. amiin jërëjëf amoon nañu mbégte dalal